jël la jiital la fa moo tax ngay bum di bumi lu am lu ne nga toog ca am nga ca kàddu bu mënul gis nga fi ko yor solaire ko ne mu nga sa dictionnaire ñun bañu ñu kenn ku wax ndax dëkk bii démocratie moo fi am eh, eh, li xam na ka ko ku nekk di wax sa xalaat te terewul kenn wax xalaatam mais nekk ndey di seet del jaaxaanaay te laa dina ma fi doomu kañay waay Talla xanaa nekkoo fi Talla rocci ma fi doomu kaña yi bu nekkee yaa ngi fi def ma siñ génneel ma fi doomu kaña yi tey sama yaram daa tàng Talla Talla yaa ngi fi nekkoo fi Talla tamit parfois day dokkoro quoi Talla Talla tu es là alors va va va ma sista ok jaambur yi di jël Sénégal gi lépp luñ fi liggéey ñu koy yàq Bouba Ndour foo ne woon Bouba Ndour ba Ousmane Sonko di taxaw na yéen cooki final la te cooki final bi ñu koy defee fara ca fara Ndakaar yéen askan bi génn leen nañu dem delloo ci président Macky Sall Bouba Ndour ara foo ne woon Bouba Ndour ba ñuy dem di jël bitiku jaambur yi ñi nga xamante ne xuloowuñu xeexuñu politiku politiku faruñu ci kenn ñuy dal seeni kaw di yàq seeni alal bu bëndul foo ne woon bu bëndul ba ñu wax Ousmane Sonko toog naan ku dee sa yaa juraat gat président Macky dafa may rey mbaa rey ko bu bëndul foo woon bu bëndul yaay naafeq bu bëndul yaay seytaane bu bëndul yaay ba yaay mais c'est très normal yaa say takk normal xamoo woon luy télé xamoo woon micro xamoo woon luy écran sa mag li mu am télé moo tax te nga mën a ba ñay def chroniqueur du sob ñàng ci ko xamoo dara ci politique xamoo dara ci télé xamoo dara ci chronique xamoo dara ci journalisme xamoo dara ci li nga xamante ne mooy micro mbaa écran ndax sa maga moom télé Mamadou merci beaucoup sama ko moom télé sama ko moom micro yi sama ko moom écran yi sama ko moo programme moo tax boobu nu ngay toog di wax lu ne yéen nag ñi ñuy invité TFM ngeen fay dem yéen a toj seen bopp man TFM woo nañ ma fa dew ma benn yoon laa fa dem du ñaar du ñett ndax nag man bu ma demee bay wuyu ji na fekk télé boobu nekk télé askan bi toogal askan bi di liggéeyal askan bi mais yow Bouba Ndour yow lépp loo xamante ne parce que xam nga ne waa APR Benno Bokk Yaakaar ñooy Karim Balbasi dañoo nooy bëgguñu dalee coow ñu dalee problème xam nga ne yow boo dalee ci waa Benno Bokk Yaakaar chaque jour di leen wax lu la neex ñu toog di la seetaan c'est parce que ay nit coow te dañ laa fam bët bu ñu lay xoole ñu la xoole sa bëtu mag sa mag nag teg ci bëtam yow suma jigéen dul teg ci bëtam gis lépp dégg lépp ndaxte mu sengaak mu seeya bi toog di la ngay def lu la neex di wax lu la neex Sénégal nag xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam Bouba Ndour yow laa doon ubbee te danaa ñëwaat yow ba mu gën a yaatu man faalawu ma la dund ma la faalawu ma la dund ma la ku yow sa faalawu ko dund ma ko yàlla dëgg la bëgg yéen la la looy seen problème ba war a jël rek Benno Bokk Yaakaar rek di ko soccoo ba di ko diwoo kirda jàppee nguur gi dafa xamatul lu muy def amul lu muy wax moo tax mu koy jàppee ne ko sàcc nañ delloowaat kese bi tuuti ci ginnaaw nañ ñu élewaat kese bi tuuti ci ginnaaw boo leen fàttee ñu fàttali leen boo leen ñu fàttali leen fàtte xaju fi Ousmane ko fii la toog am na wër ngal këpp di ko déglu mu ne agent bi bi nga xamante ne ñoo di ko jël dañoo sàcc ay téléphone ñetti téléphone sàcc valeur xaalisam valeur deux millions xanaa du sàcc sàcc rek la Ousmane Sonko foog nga ne Mamadou Sonko ba muy dee dafa jël li nga xam te ne mooy héritage su Sénégal teg ko ci loxo ku magom na ko Ousmane Sonko màggee joxal ma ko ki di fonsew Sénégal moom moo hérité Sénégal Ousmane Sonko di ritambale nu mu ko neexee Ousmane Sonko mel ni benn ñebe jëm cin Ousmane Sonko di def lu ko neex Ousmane Sonko daal mooy laa taqar buusi na bul laal bul jege Ousmane Sonko daal am na sañ-sañu dal ci kaw ni ñi Ousmane Sonko am na sañ-sañu xas nit ñi Ousmane wax lu ko neex jëf lu ko neex te dara ko ci fekk Ousmane Sonko nag da cee pas encore nag la mën a perdre du pouvoir yàlla dafa ko ko daal dafa ko ko président te du ko mas a nit ñu koy tey tey usub ee eh, ba sa baat yow kooka la bàyyi sa yuuxu yi Ousmane Sonko ñaata yoon la génn nit ñi di ko tey tey muy homme public nit ñi di ko tey tey te masu tangaang mas tayab ay gendarme ñu ngi teg foofu buñ la foto wi lan la C'est quoi le problème Tu nekk sama côté kat di fi am koo xam ne dafa ma doon jël photo nangu naa ko nag nangu naa ko ak force Ousmane Sonko ko wala waxu ko yow Ousmane Sonko même bu dul dara foo toj yaay kan Ousmane dangaa gën Barthélémy Dias ma ñu ñëwoon ca kaso ba Ousmane dangaa gën Khalifa Sall Ousmane dangaa gën Cheikh Alassane Sène Ousmane dangaa gën Karim Meïssa Wade ma bàyyam nekkoon président Ousmane nul n'est au-dessus de la loi Ousmane boo foogee ne wala say nit foog na yow ne yéen xale yi laay waxal yéen ndaw yi laay waxal ay waxambaane laa soxla ñu taxaw yéen ñii ku leen gis ku leen joxoon arme ngeen génn xeex génn leen na ca dal ay ca taliban ngoog gendarme yaa ngoog suñu borom moom moo toog place borom moom mooy boppam amatul yàlla moom mooy yàlla boppam génn leen yéen ndaw yi 2021 ba tey ñaata ndaw dee ndax na su bakkan Ousmane Sonko 2021 ba tey ñaata boromi doomu aadama ñoo xam ne dañoo taaba taaba ba am seen propre moyen taxawal seeni mbir Ousmane Sonko yàq ko ndax naf si Ousmane Sonko 2021 ba tey ñaata ndaw ñoo nekk ci biir kaso bi ndax naf si Ousmane Sonko 2021 ba tey ñaata doomu aadama ñoo xamante ne ay yaay lañ di mère de famille ñoo toog di jooy ndax naf si Ousmane Sonko lépp ci naf si Ousmane Sonko xeexalul Sénégal xeexul jafe-jafe Sénégal xeexul jafe-jafe askan xeexul euh, seeraayu dund xeexul problème na xëy xëy xëyu ndaw yi Ousmane Sonko lépp lu muy xeex rek man man man man man man man comme si que Ousmane Sonko rek ee jë wala demi jë man nii man nii man nii man man man à chaque fois man man man comme Ousmane Sonko est un demi jë comme Ousmane Sonko moom moo toog place président Macky Sall comme Ousmane Sonko moom mooy ki nga xamante ne moo détenir le monopole du pouvoir bu yoon deful liggéeyam ci Ousmane Sonko lii di magistrat lii di procureur lii di juge nañu jël seeni diplôme jox ko jàkkatu gerte caaf yi ñu jaaye ko gerte caaf te nañu fexe ba détenu yi ñu téye ñu génnee ñëpp. convoqué ci yoon mbaa yoon war a rëkk sa ndigg yoon du dal ci kaw kenn ndax yëfi nag warta am kumba am ndey ak kumba am ta ndey nit boo jéggee ci yoon dañ lay teg ci yoon ñaata population Sénégal ñaata rek 17 millions d'habitants est-ce que 17 millions d'habitants yëpp la ñu tëj est am problème ak yoon yoon même bu nekkee moo def lu defuut même bu nekkee moo lu waxuut même bu nekkee moo def lu jëfuut moo tay kenn du ko teg Ousmane Sonko nag dundagoo dundagoo amagoo loolu maa